actu du jour li gën a fës ci biir internet bi ami internet yu 24 actu dañu koy door rek fièvre jaune au Sénégal mu di nag pays ñu di ko ko wax ci olof ñu gis ne nag dafa daal di raaroon rek ndiki ay at yi ñu génn waaye nag jamono ji rek dañu ko daal di gisaar rek mu ñëwaat fii ci Sénégal ci noonee rek dafa daal di am rek huit cas yoo xamante ni rek am nañ ko fi ak lu toll ko ñaari décès rek moom la ñu daal di recensé fii ci Sénégal ci cas cas yi nag daal dinay feeñ benn ca Touba am nañ ca ñeent Kidira am nañ benn Kédougou am benn Saraya am benn ci looñ waaye nag teewul ministre bi daal dinay génn daal di xamle ne épidémie bi rek maîtriser nañ ko bu baax a baax ba ci noonee rek la daal di diglee lépp loo xamante ni rek da di moustiquaire imprégné ñu daal di koy fonk di ko utiliser waat waaye tamit nag daal dinay annoncé rek benn campagne de vaccination ndiki 15 février bi ñu dëtmal ñu daal di wéyandi rek ca diwaanu euh, Touba buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi rek di euh, Seneweb moo xam le ne rek benn chauffeur rek moo daal di fel benn taalibe bu am euh, juróom ñaari at tur ba nag dañu ko abrégé lañ ca jàpp rek moo di BS daabo moom la ndongo ba rek di wuyoo ca quartier wu allier nag fa la yëf yi amee mu mel ne rek journal bi mi nga xam le ne oto yooyu nga xamante ne nii rek duñu am këyit ba pare rek di circuler rek ci yoon wi mu mel ne rek dafa nekk phénomène boo xamante ne ni rek ba tey jii rek mi ngi am ci dëkk bu sell ah, bii di Touba waaye lañ ci jàpp rek moo di nag xale bi da doon jéggi tali bi moom ak ki ah, xaritam waaye nag kenn rek koo xamante ni originaire Gambie la moom nag dafa daal di ñàkk bakkanam rek ci saa si waaye daabo mi rek am juróom-ñaari at rek oto bi daal di koy feel moom it dafa daal di am ay gaañu gaañu rek ca bopp ba waaye rek ba tey ci journal bi xam la ne ni ah, ki def rek li ni dafa daal rek daw ngir bañ am benn tolloo ak yoon waaye teewul rek gendarmerie bu Touba Belel daat ne ubbi rek ab enquête ngir jëmee rek ci mbir moomee nga xamante ni am na rek ca diwaanu Touba dañuy daal di jubali rek wax bi la yoon uh, ci Serigne Mbaye Sy Abdou ginnaaw rek ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek daal di koy jëm rek ci xeexum uh, daara yi nga xamante ni nekk na rek di am jamono ji ginnaaw bi nga xamante ni rek ministère de la femme de la famille du genre de la protection des enfants di ñu bëggee rek génne xale yi nga xamante ni ñu ngi nekk rek ci yoon bi campagne boobu rek naat dañ koy lancé ngir li nga xamante ni rek moo di xeex jàngoro ji rek di Covid 19 waaye nag kii di Serigne Babacar Sy Abdou dafa daal di wax ne rek autorité yi nekkuñ leen rek lu dul di xeex li nga xamante ne ni rek moo di l'islam nekkuñ di xeex li nga xamante ne ni rek moo di jàngoro ji nekkuñ di xeex li nga xamante ni moo di jàngalekat yi wala daara yi wala rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jàngale alxuraan waaye seen bu nekkul leen rek lu dul xeex li nga xamante ni rek moo di alxuraanul karim la ñuy daal di jubali rek ci école Abbas Sall la ñu fa fekk rek mu di benn élève euh, bu am juróomi at di def rek classe CI moom la rek maîtresse am daal di dóor rek ba loxo ba rek jamono ji dañ ko daal di dagg la waral nag yooyu le dóor buñ sukkandikoo rek ci journal bi di Les Échos xam leen rek maîtresse bi da doon wax rek xale yi ngir ñu daal di noppi ngir rek ñu mën a déglu li nga xamante ni rek moo di nodd gi ci doonee rek la daal di jël li nga xamante ni rek moo di ab règle daa di dóor rek xale bi am juróomi at ba loxo bi rek daa di mujjee damm weddina naka loole ci kanamu juge ba waaye rek lañ mën a jàpp rek moo di maîtresse bi rek dana fixer son sort euh, le 16 février euh, bii ñu dëtmal dañuy daal di desandi rek ci njàng meek njàngale mi benn étudiant rek bu ñu daal di arrêté da doon def li nga xamante ni rek moo di viol répété foofe rek ci lycée Mame Cheikh Mbaye bu Tambacounda moom étudiant boobee rek journal bi daal nañu xamal ne mi ngi nekki en deuxième année moom rek da daan sàkku li nga xamante ni rek moo di étudiants yi ca toilette yàq ca chantier ba pare tamit daawu ca yam da leen daan jox rek ay pilule ñu di ko naan daal nañ koy jàpp ba placé ko sous mandat de dépôt ndiki démb rek ci talaata ji lépp loo xamante ni rek fësaar na ci ci moomu le mbir daan leen ko digtalaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen ci mbirum phobie polisu jaxaay ñoo daal di démantelé ndiki alxames ji ñu génn benn vaste réseau rek boo xamante ni dañ doon fabriqué lii di phobie buñ sukkandikoo rek ci les échos mi nga xamante ni rek moo daal di génne yooyu les xibaar nag réseau boobee nekkul kenn ku dul benn artiste compositeur tour ba nag dañu ko abrégé mbay dee rek lañ ca mën a jàpp ak benn enseignant boo xamante ni rek lañ mën a jàpp ci tur ba moo di BK arrêté nañ leen rek ba daal leen di déféré ba placé leen nag sous mandat de dépôt bi perquisition boobee rek daal di amee rek ci kër artiste bi moo daal di firndeel ginnaaw rek bañ fa fekkee rek lu tolloo ko ñaari million ci ay faux billets ak matériel bi nga xamante ne ni yooyu lee xaalis lépp loo xamante ni rek ruusani waat na ci ci moom le mbir dañ leen ko digtalaat ci suñu yeneen a jotaayu xibaar dañu koy daal di jeexale rek ca diwaanu Koki ginnaaw rek lakk gu métti métti gu ñu fa nemmeeku ndiki démb ca talaata ji ca village Guyar Dieng ci bu sukkandikoo rek ci presse Afrique xam na ne sapeur pompier yi dañ doon xeex ak li nga xamante ni moo di lakk-lakk gi ba ay 13 trente 30 jotee maanaam benn waxtu jàpp fanweer ci ay simili ci noonee rek la ñuy daal di soog a fayee li nga xamante ni rek moo di lakk gi village boobee nag mi ngi situé ci commune Niombre Lo sur la route de Koki soriwul Marom Diop environ sept kilomètres de Louga tey rek ci àllarba ji ñi nga xamante ni rek ñoo dëkk rek ca boobule village dañoo amee njàqare lool ginnaaw bi nga xamante ne nii rek lakk-lakk googee daal daal ne jur rek li nga xamante ni rek moo di ay dégâts matériels daal di fay rey rek benn mbaam ak li nga xamante ni rek moo di benn xar buñ sukkandikoo rek ba tey rek ci presse Afrique la xam ne rek moo di benn jigéen moo doon togg daal di rek fàtte rek fay gaz bi ba rek daal jur nag yooyu lee dégâts matériels lépp loo xamante ni rek ruusani waat na ci jëm ci moom le mbir day leen ko digtalaat ci suñ yeneen jotaayu xibaar lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm